ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun di wéy ci programme rajo Xassida online Touba monde bi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 الفائزين وامنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñun ñu ngi déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasida online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké moom ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar si émission bi ñu tuddee Makarimal Akhlaq di waxtaan yoo xam ne dinañ koy tànnal di leen ko indi bis bu ne ñu tàmbalee altane ba ajjuma juróom-ñetti waxtu jotee ngoon ki leen koy taxawal di seen mbokkum taalibe Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général de Mouride di ñaan suñu borom yàggal ko ci wéral ko di beral cant ak ki nekk ci wàllu xarale bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall nekk ca Touba Milano seen waxtaan tey ñu am yéene indi waxtaan bi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad Sané mi ngi ko doon amal ci Touba Mbacké mu bokk ci waxtaan yi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma ñu koy amal ci weeru koor wu ne ci jumaay Seex Xaadim nga xam ne moo nekk ci Tuubaa soo lay waxtaani ak li làmboo ci njëriñ moo waral ñu di ko tànn di ko indi ci biir Makaarimul Axlaaq ngir mu doon am njàngale ci ñu xamutoon doon it fàttali ci ñu xamal bi xam ne ca may insha Allah waxtaan wi am nañu pas séddale ko ci ñaari xaaj maanaam def ko ñaari émission émission tey bi mooy doon waxtaan bu njëkk bi képp ku suñu borom dogal nga déglu waxtaan tey nga xam ne li war a mottali waxtaan bi ngir nga mën a am waxtaanu mattal bi nga xam ne sëñ Abdul Ahad Sani def na ko ci Touba Mbacké faaw nga déglu émission bi nga xam ne moo ci war topp ëllëg ci waxtaan yi ñu ñaareel émission bi ngir bañ a guddal ñu jébbal kàddu gi sunu sëriñ Seexuna mu leeral waxtaan wi nan la war a tëddee leeral itam bi nga xam ne moom la sëriñ Abdul Ahad war waxtaani kon ñu jébbal kàddu Seyxuna kon sëriñ bi bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru koor gi waaye it di fetli li ndokkeel googu ci fukki fan yu tedd yu mujj yi nga xam ni ci lañ nekk ci koor gi di jiital ci ndokkeel gi ak nuyoo bi ak sargal gi sunu kilifa gi ñu dëkkaaleel di Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ci teg Mawlana alxalifatul am di tariqati almuridiya Cheikh Mohamadul Muntaqa di ko ñaanal gudd fan ak wér suñu boroom yokk ko kàttan ak wér ak man-man ba mu sottal naal yépp ca na mu gëne te ànd kook taalibe yépp ak jullit ñépp kon tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai daayira Muxaddamatul Xidma di ñëwaat ci beneen jotaay ci biir jotaay xam-xam yi nga xam ne baaxoo na ko ànd ak ci weeru koor gi yépp comme ni ngeen ko xamee jotaay yi dafa séddlikoo ay xaaj am ci yooyu ay bind lay doon yu aju ci suñu wàllu diine ñu ciy fàttalante di ci nafar di ci jàng am ci yooyu day aju ci lu jëm ci wàllu eh, ay actualité ay xew-xew yoo xam ne dafay laaj ñu ñëw wax ci taxawaayu diine ak gis-gisam am ci yoo xam ne it ay laaj ak i tontu lay doon tey nag jotaay bi dafay bokk ci jotaay yi nga xam ne dañ koo jagleel ay bind ñu ciy fàttali bind bu am solo boo xam ne ñëw na ci waxtoom ñëw na ci jamonoom yitteel lool waaye it mata waxtaane lool muy lu aju ci muurum koor ak jullik ñaari iid yi xam ngeen ne jamono yi ñu nekk incha bu ñu yàlla mayee wér ak kàttan ak fekke balaa yàgg fii ak ñaari fan wala ñetti fan danañ wari ci jàmm kori googu nag daa am ak baa ak jaamu yàlla gum baaxoo àndal muy jaamu yàlla goo xam ne dafa tegu ci ndigal ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal te muy muurum koor waaye it mu am geneen jaamu yàlla gum àndal muy julli gi ñu julli ci bisub ayit kon incha allah waxtaan wi ni mu nar a tëdde mooy danañ waxtaan ci muurum koor googu ak li gën a fees ci ay atteem ak i tegginam waaye danañu waxtaan ci julli iid googu wala ñaari julli iid muy julli korite ak ak li gën a fees ci ay atteem ak i tegginam euh, ki ñu ci war a àndal nag ci waxtaan woowu di kilifa ci xam-xam waaye di ku ñu xam ku daayira bi miin ci ay jotaayam rawatina jotaayi koor gi muy fadilatul ustaas ak docteur al allaama Abdul Ahad Saane incha allah sëriñ Abdou Lahad moom la ñu war a àndal ci jotaay bi jotaay bi miin na ko lool ñëw na fi ay yooni yoon def fi ay waxtaan yu am solo daayira bi di gën a feddali kóllëreem ak moom di ko gën a sant ci ay taxawaayam waaye di ko ñaanal tawfiq ak tey taysiir ci waxtaan wi mu yàlla fecc aw làmmiñam lu ñu fi taataane it ñu mën koo jariñoo kon xam naa du ñu guddal dañu bàyyee sëriñ Abdou Lahad kàddu gi rek incha allah bu ko defee bu kiyee ba noppi ñu soog a tëj kon sëriñ Abdul Ahad falta tafaddal ma ñu jébbal kàddu gi sëriñ Abdul Ahad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bi tudd Makarimal Akhlaq ci seen rajo xasida online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko ci Touba Milano ci studio sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bachir bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte dajewaat ak yéen ci sunu jataay yi di jataayi koor fii ci jumaa ju mag ji ci Tuuba ci saytu daayira bii di muqaddimatul xidma di am mbégte dajeeg sunuy mbokki daara dajeeg sunuy mbokki taalibe ci jataay yi nga xam ni Eh, daairatu muqaddimatul xidma ñu ngi ci féddali saa su ne seen kóllëre ak kóolute ci sunu jëmm ji eh, ngir rekk ñu bokk ci ñi nga xam ni ñooy gaaral ay thème ci wàllu fàttale ci yenn yoo xam ni dafay bokk ci Eh, sunuy sunu diine di lislaam eh, ñu ngi leen ci sant waaye it ñu ngi jiital ci cant gi eh, a cheikh Mouhamadul Mourtada ala cheikh Mouhamadul Muntaqa di al xalifatul aam li tariqatil muridiya di ko ñaanal yàlla gudd fan lool ak wér. gannaaw loolu it ñu ngi nuyu kilifa yépp nga xam ni ñooy kilifa yoon wi eh, di sàkku ci ñoom ñaan saa ne ndax ci seenu barkeeg seenu taxawoog seenu saytu ci la jataay yu mel nii sosoo waaye it ci la jataay yi continuer ba tey eh, jataay yi nag comme ni ñu koy faral di waxe rek jataayu fàttalante la waaye jataayu gaaral la lenn ci loo xam ni dafa soxal jullit bi ci diineem mawduu jataayu tey bii nag dafa yàju ci ñaar yu am solo Euh, ci lislaam mu doon ñaar yoo xam ni benn bu ci nekk dafa am benn ponk buñ ko bootal ci ponki lislaam yi euh, ndax bu fekkee ni zakatul fitre la mi ngi bootu ci ginnaawu zakatul maal mi nga xam ni ponk la ci ponki lislaam waaye bu fekkee ni salaatul iidayni la it mi ngi bootu ci beneen ponk di ponku julli bi nga xam ni dafa bokk ci ponk ponki lislaam kon it mawdu daan na am solo lool waaye mawdu bii it desut gannaaw ci am solo ndax ñaar ya muy wax ñaar yooya yépp dafa bokk ci euh, loo xam ni bu dut ponk it waaye bootu na ci ay ponk bu dut eh, yegg ci farata ni faratay julleeg azaka it waaye dafa mujje doonub shiaar goo xam ni tey ko ci bàyyi ko ab dëkk bu ko tey bañ a julli ki it ci teyeef wala ñëpp dëppoo ne du ñu joxe azakay wala zakatul fitr asaka yu murum koor am na ay àtte yoo xam ni buurum réew ma sañ na ko teg ci kaw waa dëkk booba kon dëgg la yegguñu ci dooni ponk waaye nag chiar la muy luy màndargaal di jëmmal lislaam ci dëkk bu mu ne e, ba ci jëkk nag di zakatul fitr asakay muurum koor danañ ko tuddee ba tey sadaqatul fitr mooy saraxub muurum koor e, mu doon loo xam ni wala mu doon ndigal loo xam ni daa jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, jege lool ak farata ba tax am nañu ne farata la dinañ ci ñëw waaye bu ñuy jëm ci taarif ko mooy définir ko xamle mooy lan boroom xam-xam yi surtout ibnu arafa ci xuduudam ya mu nga cay wax ni zakatul fitri day fi l urfi shar'i i'taau muslimin faqirin li quuti yowmi lfitri saaan min xaalibi lquuti aw juz'i mu ne zakatul fitre di asakay murum koor buñ koy définir buñ la bëggee gaaral xamal la mooy lan nee na mooy nga jox ab cër eh, ab jullit nga joxub jullit boo xam ni jullit bu ñàkk la jox ko lu mu mën a dunde ci benn bis waaye jox ga it nga fexe mu tombeeg bisu korite ga la nga koy joxit nga fexe mu doon la waa réew moomu wala waa dëkk boobu wala waa waa waa gox boobu di dunde moom noonu la taarife muurum koor kon muurum koor lañu cay dégg ci taarif boobu mooy lu ñuy yëkkati la ab jullit a koy yëkkati yaa xam ku doon woor ci weer wi la wala daa am ngànt ba woorul waaye daal ab jullit cib jullit lay jóge jëm cib jullit ni moom ka jëm ci moom nag daa war a melowoo ak ñàkk la nga koy joxit daa war a doon lu muy dunde ci bisu korite ga na mu war a toll it day war a tolloog saa wala xaajub saa ci loo xam ni moom la waa gox boobu di dunde kon yooya mooy taarif bi ko ibnu arafa taarife moom zakatul fitre nee na li tax ñu tudde ko zakatul fitre mooy ni ndax korite moo tax mu war dañ koo waral te bañ ko waral korite gi moo tax moo tax ñu tuddee ko zakatul fitr eh, bu dee nag luy àtteem ban poids la yor ci sharia eh, la shakka ni zakatul fitr dañu ko yoonal ngir mu raxas laabal aji woor ja walla jullit wi nga xam ni dafa fekke woor weeru koor te am ngànt lu tax woorul laabal ko laabal kële ci amaana ay xalal yoo xam ni tàbbi na ci biir kooram xalal mooy ay sikk yu sew yoo xam ni yàqul koor waaye nag mën naa am sax bàyyiwu ca xel waaye ngir setal yooya raxas ko ba mu set walis kooka loolu moo tax ñu yoonal zakatul fitr yonent bi moo wax ci xadiis boo xam ni abu daawuda moo ko solo jële ci ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na zakatul fitri tuhratun lissaaimi min allaxwi wa rafath mu ne asakay mburum koor dana laabal aji woor ji ci amaana ay mbóorant ak ay caaxaan ak ay rëcc rëccël yoo xam ni da koo dal ci biir koor gi amaana sax du ko yëg kon loola mooy wane ni zakatul fitre dañ ko yoonal mu bokk ci lislaam bokk it ci sha'air yi bu fekkee ni eh, xikma wala xereñte bi tax yonent bi sallallahu alayhi wa digle ko wala sax sunu boroom digle ko mooy ignaul faqi fuqaraa an suaali nnaasi fi yowmi al iid kama annaha sababun li qabuli siyaam nee bokk na ci xikma yi tax yàlla digle ko yonent bi sallallahu alayhi wa digle ko mooy ni ndax dana dimbali aji ñàkk ji dana dimbali aji xaajowoo ji ci bis bi nga xam ni feet la it la ci jullit ñépp ba du taxaw ci buntu kenn di sàkku ci moom dara dana woomal aji ñàkk yi ba tax eh, bisu korite duñu taxaw ci buntu kenn di ko yelwaan naka noonu bokk na ci xikma ya ca ne mooy ni dafay mottali taaru koor waaye dafay doon loo xam ne dina tax sunu borom nangu kooruk aji woor ji surtout ki ko am te man ko moom zakaatul fitre ba tey dafa am ay ponk ñeenti ponk te ba ci jëkk mooy ka koy joxe waxoon nañu ni ab jullit lay doon yaa xam mu kallaf la wala mu kallaf waaye na doonub jullit loola mooy ponk bu jëkk ci ponki zakaatul fitre ñaareelu ponk bi mooy kañu koy jox moom it dafa war a doon jullit waaye it doon koo xam ni day doon ab faqiir wala ab miskiin kon boobu mooy ñaareelu ponk bi mooy kañu koy jox ñetteelu ponk bi mooy waxtu wañ koy génnee waxtu wa nga xam ni ca lay ware waxtu woowa dinañ ci ñëw ci kanam incha allah ñeenteelu ponk bi mooy kañu ko war a jox kan la kañu ko war a jox kan la kon ponk bu njëkk bi di aji joxe ji e ñaareelu ponk bi di lañuy joxe ñetteelu ponk bi di waxtu wañ koy joxe ñeenteelu ponk bi di ki ñu koy jox zakatul fitr ci diggante yii la aju bu dee àtteem nag jumhurul ulama boroom xam-xam yi la ëpp ci ñoom dëppoo nañu ci ni zakatul fitri yi muy asakay murum koor lu war la la ëpp ci ñoom loolu la wax waaye dañu wuute ci war gàmmu war ndax waru alquran la ndax alquran a ko waral wala sunnaa ko waral eh, am nañu ne zakatul fitri alquran a ko waral ndax digg digle gi yàlla digle alxur eh, eh, joxe asaka da ko boyal asaka yi alal daf cey dugg waaye asaka yi sakaatul fitre yi da cey dugg ndax fa yàlla ne waaqimu salaata wa aatu zakata zakaatul fitre am na boroom xam-xam yu ne duggaale na ca ndax sunu boroom dafa boyal rek asaka ja eh, lii nag jële nañ ko ci imaam Maalik ci boppam muy wax ni asakay zakatul fitre asakay muurum koor waajibatun bil quraan mu tegtaloo ci laaya jii di wax wa aatu nee na bokk na li tax moom imaam Malik ñu war koo dégge ci laaya jooju mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa solo nañu ci moom ne farada zakatal fitri min ramadana ala nnaasi ala xurrin aw abdin dakarin aw untha min almuslimina wa axadaha minhum nee nañu imaam Malik nee na am na ay saxaaba yu jële ci yonent bi ne yonent bi dafa farataal asakay muurum koor ci weeru koor da ko farataal ci nit ñépp ci gor faratal la ci moom farata ci jaam faratal la ci góor farata ci jigéen ci mbooleem kuy jullit yonent bi faratal na ko ci ñoom ba pare daan dem yónnee ñu ko daa jël ci ñoom di ko indi ci jàkka ji mu séddale ko eh, kon eh, Malik nee na xadis bii day féddali ni digle gi yàlla digle joxe asaka asakay muurum koor daf caa bokk yonent bi lii ñu nettalee ci moom it ci ay waxam ak jëfam it dafay wone la nga xam ni moom la yàlla tënkoon ci alquran ci wa atu zaka di wanewaat la yàlla tënk ca ba muy wax ni xud min am amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim nee na yàlla nee na jëlal ci seen alal sadaqa mooy sarax sarax soo xam ni danga leen ca laabale waaye it da leen ca sellale boo paree nga ñaanal leen ku la jox asaka ñaanal ko nee na loola aaya boobu mujj mujmal la ndax lan la ñuy jël ci seen alal lan mooy kammiye bi ak ci yan condition lañ koy jëlee laaya ja da koo tënk yonent bi ci xadiisam boobu mu firi ko boole ci zakatul fitri wane ni zakatul fitri it farata la mu waxati ni moom Malik ne jële nañ ci Omar ibnu Abdul Aziz ne daan na firi bu daa firi laaya ji sunu borom di wax ni qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla malik nee na umar ibnu abdul aziz daan na ko firee ne innaha zakatul fitri summa alxuduwu ila almusalla nee na laaya ji sunu borom lamu mu ca nam mooy joxe asakay muurum koor boo ko joxee ba pare xëy dem ca jàkka ja julli ji julli ayit nee na Umar ibn Abdul Aziz noonu la ko daan firee e, teewul nag am na ci madhabu Malik ak ci wax joo xam ni sax nag toxale nañ ko ci moom Malik di ca wax ni asakay muurum koor day sunna su war la sunna su war la buñ la nee sunna su war nag ci ku xamul istilaax dana la jaaxal ndax buñ la nee alwaajib mooy moo faw fawqa sunna ñu waxaat la sunna nekk ci suufu waajib nan la menn mbir di tudd di doone waajib ba pare doon sunna wala mu doon sunna doon waajib loola du lu du boo demee ca borom maraaq mi ngi lay wax ni wa sunnatun ma ahmadun qad waadaba alayhi wa dhuhuru fihi wajaba wa baaduhum samma alladi qad ukkida minha bi waajibin fa xud ma quyida nee na bu dee sunna mooy loo xam ne yonent bi daf caa sax ba pare daa ko def ci mbooloo comme salaatul iidayni comme asaka yi muurum koor ak xeet yu mel noonu loola mooy sunna mu ne waaye nag am na ci boroom xam-xami maalik yi ku mel ni ibnu abi zeydin al xayrawaan yi sunna su feddaliku ñoom daan nañ ko tudde waajib moom la wax ni wa baaduhum sàmm alladi qad ukkida minha bi waajibin nee na am na ci boroom xamxam yi ñoo xam ne sunna su feddaliku danañ ko tuddee waajib kon loola bu ñu la nee sunna waajiba kon mooy sunna su feddaliku ndax sunna yi bari nañu waaye dañoo ëppante doole sunna ya gën a feddaliku ci xeeti sunna yi yooyu la ñuy tuddee sunna waajiba kon jële nañu ci Maalik it muy wax ni zakatul fitr sunna waajiba la yonent bi sallallahu alayhi wa da ko farataal laa ala wajhi alfardiya waaye ala wajhi assunniya almuakkada e, li tax nag wala njëlbeenu farataal walla waral asakay muurum koor mi ngi amoon ca koor gu jëkk ga ca ba yàlla farataale koor ndax booba alhijra ila almadina dafa doonoon farata dafa doonoon farata ba yàlla daan tëkk lu bari ñi nga xam ni amanu walam yuhaajiru bay wax ni maa lahum mi lakum min walaayatihim min ku gëm yàlla ci jamono yooya ak foo mën a nekk ci àdduna dafa doonoon farata ci yow nga gàddaay fekk yonent bi gàddaay farata la woon gu mënta ñàkk boo xam ni ñàkk koo def dana tax say jëf neen say jëf yàqu walladina amanu walam yuhaajiru Eh, googa sunu borom di tëkkoo ñooña ñi gëm te gàddaayuñu fekk si la yow ma yow yonent bi ca Madina ñooña bokku leen ak ñoom dara amu leen ko waayoo seen diggante ak ñoom loola taxoon na ku mës a tuub rek ak foo mës a tuub foo mën a tuubee danga nga daan gàddaay ñëw fekk si yonent bi sallallahu alayhi wasallam Madina loola dafa continuer di valable ba keroog fatxu Makka ba yàlla ubbilee yonent bi Makka Makka dugg ci lislaam keroog la yonent bi dindi loolu ca la mu waxoon ni laa hijrata ba'da al-fathi walakin jihaadun wa niyya wa idha stunfirtum fanfiru mu ne gannaaw fatxu makka amatul kon ca at ma ñu farataalee woor weeru koor fekkoon na ña gàddaay jóge seeni gox jóge seeni dëkk jóge seeni réew ñëw fekk si yonent bi madina fekkoon na ñu bari lool bu mu masaa ñëw ci jàkka ja lañ leen daan dalal ba keroog ñuy am ci lu ñu jàpp ku am ci loo jàpp jéem a lijjanti fooy dëkk dëkk fa ci biir Madina waaye ca jàkka ja lañ leen daan dalal ñu daan ànd di defandoo lépp ci koor gi di ànd di defandoo lépp waaye bi mu demee ba nga xam ni nag woor yi jot na ndaxte eh, bu ñu masaa woor ba ngoon wala ci ba bëccëg bi ña nga xam ni amuñu woon dëkkuwaay te amuñu woon lu ñu ngànnaayoo ci alal dañ daan ndox di di di yelwaan di yelwaan ci ci ci biir saxaaba yi di dem ci kër yi ñii ñu leen di tibbal ñii di yelwaan yi eh, ñu ñuy tudde suuf suffa eh, ba eh, korite nga jotee nag foofa la yonent bi joxe ndigal ngir ña leen daan yelwaan si bugul bis bi kenn yelwaan ndax bisu iid la bisu iid ñëpp dañu war a tolloo ci taar ñëpp dañu war a tolloo ci regg ñëpp dañu war a tolloo ci jëfandikoo lu neex kon booba la yonent bi sallallahu alayhi wa bañ kenn di dem di yelwaani wala kenn dem di laaji kenn wala kenn di sàkku ci kenn wala kenn di ñàkk lekk-lekk gu neex loola taxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa ca saasa ca la yéenee yàlla farataal na ci jullit ñépp ñu génne azakay zakatul fitr foofa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa farataale ba loolu amee eh, saxaaba yi ku ci nekk la nga yor nga indil ko yonent bi bañ ko indilee yonent bi yonent bi séddale ko ña nga xam ni ñu ràññeeku woon lañu ci ñàkk la ca des lépp mu yëkkati ko jox ko ña nekkoon ca jàkka ja te mooy ahlu suufa ñii di leen tudde addaafa kon ñooñu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagleeloon kon foofa la faratay wala wareelek wareeluk zakatul fitr foofa la tàmbalee mooy ci koor gu jëkk ga Eh, comme ni ñu ko waxee madhabu maalik toxale nañu ci moom mu ne farata la toxale nañu ci moom mu ne sunna su war la te sunna su war mooy sunna su feddaliku eh, waaye nag ànd ak loolu yaa xam farata la wala sunna su feddaliku la waaye shi'ar la min sha'air al muslimin te sha'air dafay am meneen maanaa moo xam ni maanaam mu jara bàyyi xel la sha'ira mën na bañ a doon farata waaye am làmboo maanaam moo xam ni day gën a feddaliku farata ci wàllu woowa ci misaal julli mbooloo julli mbooloo ci mazhab Malik du farata sunna la waaye bépp dëkk boo xam ni dëppoo nañu ci ne bu fi kenn julleeti mbooloo donte ku nekk yaa ngi julli ci sa kër bu kenn demati ca jàkka ja ku ne na nga jullee këram dëkk bu dëppoo ca wax loola te fekk réew ma di àttewoo lislaam buur ba at sañ naa takkub xare attaqué réew dëkk boobu naa takkub xare attaqué dëkk boobu ba te ñu taxawalee julli mbooloo moomu donte julli mbooloo du farata indal malikiya ndax lan ndax shiaar la min shaair al islam wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa alqulub kon shi'aar la bu ñu war a màggal neenal ko dana tax ñu song leenub xare neenal ko dana tax ñu song leenub xare shi'aar la dafa mel ni joxe azaka na mu doone woon indil ko euh, ci capitalu lislaam ci indil ko yonent bi shi'aar la woon daawul doy rek nga génneel ko sa bopp joxe ko waaye dañ ko daan dajale lépp jox ko imaam te imaam mooy buur booba mu xool fa mu gën a yelle mu dugal ko fa ñàkk a joxe azaka googu nag ba fi yonent bi jógee ñàllaankoon ne duñu ko joxe duñ ko joxe indil ko Abu Bakar euh, ñooña mooy xurub yooya Abu Bakar defoon yépp doonul woonu xurubun li ridda am na ñoo xam dañu murtatoon dëgg la mu dal ci seen kaw waaye am na ñoo xam ne dañu bañoon joxe indil ko azaka ji comme nañ ko daan indi yonen indil yonent bi mu dal ci seen kaw ca lay waxe ni wallahi law manauni iqaalan kaanu yuaddunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la qaataltuhum alayhi waxuma la géléem ya ñu daan indi ak jur yi ya ñu daan indil yonent bi nga xam ni shiaar la min shaair al waaye buum yañ ko daan takke sax buñ ko ca boolewul ma dal seen kaw loolu la Aboubacar Siddiq waxoon kon euh, du jëmmi yóbbu azaka ji ci boppam mooy farata ndax azaka ku ne mën na koo génneel boppam waaye jamono yooyu indi ko Madina shiar la min sha'airil islam shiar googa naka taxoon Aboubacar xeex dal ci kaw ñooña kon zakatul fitr euh, xirashi ci muxtasar xalil charxul xirashi ala muxtasar xalil mu doon borom xam-xam bu mag min al azhar gii nga dégg ca misra bañ mooy premier kuñ fa nommé cheikh azhar moom xirashi borom charxul xirashi ala muxtasar xalil moom mi ngi wax ni eh, laa yuqaatalu ahlu baladin ala ay zakati lfitre nee na waaye nag bu amee ab dëkk bu lànk ni donte chiaar la waaye bu amee ab dëkk bu lànk ni du ñu joxe azakay fitr deesul dal ci seen kaw ngir loolu donte aar la moom wax na ba pare nag mu waxaat ci asharxul kabir ndax dafa shara xalil ñetti sharx ca sharxul kabir mi ngi fay wax ni loola la boroom xam-xam yi wax waaye nag ma mal farqu baynaha wa bayna baadi sunan allati yuqaatalu ala tarkiha nee na sunna la su feddaliku wala yuqaatalu ala tarkiha am na yeneen sunna yu feddaliku te képp dëkk bu ànd ci neenal ko war warees naa dal ci seen kaw lan mooy différence su ñaar yooyu kon dafa def laajte gu mu indul indiwul tontoom moom xirashi eh, lu mel ni salaatul ay idayni bépp dëkk bu dëppoo ci neenal ko ma ne sañees naa dal ci sa kaw dëkk bu dëppoo ci neenal ko sañees naa dal ci sa kaw ba keroog nga koy taxawal te sunna la su feddaliku zakatul fitre sunna su feddaliku la it waaye ku ko neenal mazhab Malik nee na jarut ñuy dal ci kawam xirash indi laaj boobu te tontulu ko waaye am na boroom xam-xam yu tontu mooy ni zakatul fitre dafa doon sunna soo xam ni maanaa ma ca nekk ella ba ca nekk xam nañu ko mooy lan saddu xaajatil faqiir fexe ba aji ñàkk ji du yelwaan ci bis bi du laajte ci bis bi du sàkku ci kenn dara ci bis bi comme illa la boo xam ne dafa am ci ay ñu mu aju loolu moo tax laa yuqaatalu ala tarkiha waaye salaatul iidayni moom lislaam ci boppam lay jëmmal te maanaa ma ca nekk xamee su ko xayr ma xayr muallala maanaam mi tax yàlla farataal salaatul iidayni xamuñu maanaama comme lee xamuñu maanaama yuqaatalu ala tarkiha lii nag xamees na maanaama laa yuqaatalu ala tarkiha kon moom loola la yenn ci boroom xam-xam yi ku mel ni ibnu arafa loola lañu ñu taalilee mbir moomu e, mu demaat ci koo xam ni dafa weddi e, zakatul fitr ne du ko joxe lànk ba pare laysa laysa bi fardin ne du ko joxe ndax du farata mu ne kooku laa yuqaatalu alayhi waaye ki ma ki ne duma ko joxe ndax xayru mashrua nee na kooku moom yuqaatalu alayhi dañuy dal ci kawam ndax lan moo tax ndax sàmmoonteeg xilaaf bi am ci ni farata la wala wala sunna la ki ne du farata moo tax duma ko joxe ndax ca moom bàyyi sunna dagan na kookal laa shay'a alayhi waaye ki ne laysa mashrua du farata du sunna bokkul sax ci lislaam kooka loolu ma wax jar nañu dal ci kawam ndax ijmaa daa am ala mashruiyati zakatil fitri jërëjëf sëriñ abdul ahad sëriñ fitri kan la war fitri di asakay murum koor kan la eh, junjoon nañu ko mooy ni war na képp koo xam ni jullit la tey gor taman taman koo joxe ca jamono yamu yamu doonee wareef yaa xam jamono yamu la ware da koo mën a da nga dafa nekk ak yow nga am ko wala yoruloo ko waaye am nga possibilité yi wut ko bu weesoo koo xam ni yor na as lëf euh, ci mel ni jamono ji ñu toll nga xam ne am nga as lëf soo denc waaye yaa ngi ko denc dakaar dem Dakar mënut a nekk fi mu toll nii euh, waaye wóor na la ni bu confinement bi jeexee da nga mën a dem Dakar dem jëli ko la nga fa moom la nga fa am waaye jekk woo ko nii nii nii ana te bari na lool ñu ñu nekk ci xaal boobu kooka nag moom bu boobaa day war ci yow nga leb ko boo amee ko lebal day war ci yow nga leb ko comme am nga loo koy faye waaye la nga koo faye danga koo jekkuwul ci jamono ya mu waree kooku da koy leb joxe ko waaye koo xam ni yaakaaru ko denc ko fenn te amaana bu ko lebee mu sonal ko kooku waratu ko wàcc na ko moom ki nga xam ni weer wi sori na waaye xam na ni weer wu dee am na salaire bu koy nekk ci barab joxuñu ko avance ca fa muy liggéey ci misaal waaye weer wu dee moom dana jotub salaire am jekkuwu ko nii kooka faratala ci moom bu amee fu mu koy lebe mu lebi ko ndax bu weer deewee dana jot saleeram bu jotee salaire am fay ko waaye ki nga xam ni yoru ko te yaakaaru ko kooka zakatul fitre wàcc na ko waru ko eh, ka koy joxe it war na doon koo xam ni am na ko waaye am na it lu muy lu muy dunde suba ak ginnaaw suba kooku da koy joxe e, xuutu la budda mu doon loo xam ni dafa dafa dafay ëpp la nga soxla tey waaye boo xamee ni dafa yem ci la nga soxla tey asakay muurum koor waru la waaye bu fekkee ni sa yittey tey yittey kori gi mottali nga ko waaye nag na doon yittey kori ci loo xam ni dañ koo sunnaal ci kori dañ koo sunnaal ci kori waaye la nga yor yem ci loo xam ni nga mën a ndugge ci misaal yaag sa njaboot ñaari junni ba ñetti junni te fekk fukki junni rekk nga yor nga jël fukki junni yooyu yëpp def ko ci kori gi ba pare ne aw ma lu may joxe muurum koor déedéet ku yow am nga ko danga koo def ci loo xam ni euh, da dul priorité euh, kooka wàccu la daf laa war xotti li ñuy xotti njaboot geeg yooyu yëpp ndax am lu baax la ak yenn xeeti lekk yi nga xam ni du ñu soxla lépp ci bis bi yooye yëpp euh, dafa weesu yi bis bi kon ku desal ku desal as lëf lu ëpp sa yi bis kooka war ngaa génne asakay murum koor ah, ña ngi koy génneel it mooy képp koo xam ni dundam ci yow la aju képp koo xam ni yaa koy dundal ci sa njaboot la bokk yaa xam mu ngi ci kër gi wala daa fare feneen waaye ay mbiram ci yow la aju kooka da ko ko war a génneel kooku génne génneel ko ko ci yow la war eh, képp koo xam ne nag mu kallaf nga di ko mën a amal sa bopp li gën mooy nga teggil ko say way jur teggil ko fa nga ne nga génneel ko sa bopp ndax jafewul ndax kële la ko génneel yool ba moo koy moom de waaye yow mi ko am génneel ko sa bopp nag donte dana la laabalal sa koor amut sikki sàkka waaye yool ba ca nekk moom moo koy moom yow mi ko man ñaari kilo ceeb ak aslëf man koo génnee weesuwul téeméer ak juróom benn fukk génneel ko sa bopp gën ngay wekku ca góor ga ba tey génneel ko sa bopp ndax sinon góor gi dana yóbbu tiyaaba yépp yow doo doo doo doo am dara lu dul ni rek laabalal na la sa koor kon képp koo xam ni mu mukallaf nga sopp nañu ci yow nga génneel ko sa bopp bu dee kenn du la ko génneel bu dee am nga sax ku la koy génneel bu dee nag amoo ku la koy génneel boobaa day dal di war ci yow nga génneel ko sa bopp sëy way jur yi nga xam ni seen loxo jotut seen ginnaaw it yow doom ji war na la nga génneel leen ko sa doom yi góor yi kallafagul war na ci yow nga génneel leen ko ku ci doon mu kallaf te jàppagul ci dara kooka it war na ci yow nga génneel ko ko bu fekkee ni nag kuy man di amal boppam crédit la bis bu jot dana jënd paas 500 francs kooku booy boo nga bàyyi ko mu génneel ko boppam ndax loola mooy priorité Euh, ndax shabab yi xale yi góor yi léegi mu kallaf euh, ñàkk danañ ñàkk lu nekk ba mu des crédit lu nekk danañ ko ñàkk ba mu des paas kooka bàyyi ko mu génneel ko boppam mu tàmm ko ndax moom it mu am lu muy fàggu ci tuyaaba war nga ko génneel it say soxna euh, war nga ko génneel sa way jur wu góor bu dee daa am soxna donte soxna sa képp ko soxna sa du sa ndey képp koo xam ni dafa aju ci yow te ñàkk te munu ko danga ko ko war a génneel génneewaaleel képp ku aju ci moom mooma mbindaan mi sa baay yore ca kër ga te sa baay yaa ko yor mu am koo xam ni sa baay rek lay liggéeyal wala yeneeni soxnaam mu wareen leen yor wala yeneen doomam yoo xam ni amaana bokk leen ndey te góor gi ci yow la aju kon ñoom it li góor gi ci yow lañuy aju ñoom tamit ci yow la ñuy aju da leen koy génneel Eh, képp nag koo xam ni lot nga ci man ko génnee ca jamono ya muy war lu jëkk iid gi ba bisu iid gi jot ñu julli ji ba ñëw génne asakay muurum koor waratu la waaye sopp nañ ci yow nga baaxantal ko doonatul waajib ci yow yool wa it dootul tollook yoolu ka ko génnee ca waxtoom waaye nag mën nga koo dabu eh, ci wàllu bi mu doon lu ñu sopp ci yow nga génne ko loola it boroom xam-xamu maalik yi wax nañ ko e, ki nga xam ne dafa nekk ci tukki nekkul këram nekkul dëkkam te aadatan daan nañ ko ko génneel ci fa mu dëkk ni ci ay waajuram ni ci ay kilifaam waaye bu fa nekkul rekk ne ko sopp nañu mu génneel ko boppam ixtiyaatan ngir léemtu ndax amaana nekku fa fàtte nañ ko ba génnee luñ ko ko amaana ñàkk gam fa ñàkk nekk tax nañu fàtte ko ba duñ ko ko génneel waaye bu ko wóoree ni duñ ko ko génneel donte daa nekk ci tukki war na ci moom mu génneel ko boppam donte daa nekk ci tukki amaan ak zakatul fitre kañ lay war boroom xam-xam yi wuute nañu ci ci ñaari wax surtout maaliki yi am nañu ne dana war bi xurubi shamsi aaxiri yawmin min ramadaan bis bi mujj ci weeru koor bu jant ba soowee rekk am nañu ne azal zakatul war na booba la ak wareef gi tàmbali am nañu ne déedéet mi ngi war bisu kori gi ci bu fajar fenkee rek bu jant bi fenkee rek bu fajar gi fenkee rek foofa la war foofa la waree war gi di tàmbali kon ci kaw loolu bu jant bi so ñi wax ni bu jant bi sowee ci la war ci bis bu mujj ci weeru koor kon gannaaw ba jant bi sowee ku ci sa soxna am doom doom jooju doo ko ko génne laaleel ndax bokkul woon ca koor ga booba war gi daa war ba pare moom mu doo ko juddu ñi ne nag bu fajaru bisu korite gi fajar gi xare booba la tàmbalee di war ku ci sa soxna am doomit gannaaw ba jant ba sowee bu boobaa danga koy boole da nga ko cay génnewaaleel ndax booba ba muy judd booba war gi tàbbeegul loola it boroom xam-xam yi wax nañ ko e, kañ lañ ko war a génnee kañ la génne gi di kañ lañ ko mën a sañ a génnee la shakka ni lay wareef gi mooy génne ko ci bisu korite ci bu bu bu bu fajar xasee xar wala guddi korite xasabal xaw lay ni ci ñaari mazhab bi waaye nag ba tey wuute am na ci mazhab bi ci weneen wàll mooy ni ndax dinga ko mën a génne asakay muurum koor lu jiitu bisu korite gi lu ko jiitu ci benn bis walla ci ñaari bis am na ci mazhabu Malik ñu bari ci ñoom nee nañu sañees na koo génne bu korite desee ñaari fan wala bu desee benn fan waaye warta ëpp ñaari fan sañoo ko génne bu korite desee ñetti fan waaye ñaari fan ak benn fan sañees na ko caa génnee loola qawlun mu'tamadun fil madhab ñu bari ci madhab Malik wax nañu loolu te wax ju ñu mën a sukkandikoo lañu la eh, wax jooju it daa tegu ci bu wuute boo xam ni boroom xam-xamu usul yi ñoo ko wuute woon bu yàgg te jaamu yàlla woo xam ni dañ ko wutal waxtu ndax sañees na koo jiital lu jëkk waxtu wa di jot wala sañeesu koo jiital laa bu da xaar ba waxtu wi yegg si nga dog koo def wuute nañu ci loolu waaye lépp ci maalikiya yi dañoo séddale mbir moomu ñaar ñu ne bu dee jaamub yàlla la boo xam ne dañ ko wutal waxtu mu doon jaamub yàlla kese lenn kenn nekku ci comme julli bu boobaa laa yajuusu taqdimuha an waqtiha ndax jaamub kese la gu kenn xamalul wenn yil la dañ ñoo digal rek ne jullee leen nii ci waxtu wi ñuy jullee noona ci waxtu woowu kon jaamu yàlla kese la yoonu kenn nekku ca lenn kenn nekku ca xalaatu kenn nekku ca ci waxtu yaak yooya jaamu yàlla gu mel noonu kenn sañu ko koo jiital an waqtiha lu dut fii xududin mahduda fii xududin dayiqa lu mel ni e, aljamu bayna salaatayni taqdiman surtout muy tisbaar ak tàkkusaan nga jiital tàkkusaan nga wala timis gee nga jiital gee ga lu dut loolu sañoo julli waxtu julli waxtu wa jotagul sañoo julliw julli te waxtu wa jotagul ndax lan jaamu yàlla la gu ñu xamut sansam jaamu yàlla la goo xam ne ak njaamu kese la leneen nekku waaye bu fekkee ni jaamu yàlla la goo xam ne dañoo xam ella ba wala jaamu yàlla goo xam ni e, la ko tax a jóg mooy rek na jaamu googa am ak nu mu mën a amee baax na comme bu la nit wóoloo lebal la dara fay bor booba farata la jaamu yàlla la yàllaa ko digle inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha ida tadayantum bi daynin ila ila ajalin musamman faktubuhu ayatu dayni e, day farataal fay bor kon fay bor jaamu yàlla la ndax ndigal la waaye lan moo tax ndigal la lan moo tax ñu digal ñu ko ndax àqu jàmbur la dañ la koo lebaloon da nga koo war a delloo tuukuru ak ku jàmbur kese la moom bon bu ngeen deelante woon ne ko weer wu dee laa lay fay nga leb ci moom tey ne ko bu weer wi deewee la cinq ma fay la suba nga jekk ko dem fay ko loola lu ñu gërëm la lu ñu gërëm la def nga ndigal fay nga bor ba baax na donte da koo jiital an waqtiha waaye bu fekkee ni jaamu la goo xam ne dafa am ñaari shaiba genn wàll gi jaamu la genn wàll gi ellay xàqu jàmbur la googa ndax sañees na koo jiital wala sañeesu koo jiital te joxe azaka yi alal daf caa bokk zakaatul fitri da caa bokk zakaatul fitri ak joxe azaka benn pàcc ba jaamu yàlla la beneen pàcc ba yëfi jàmbur la nga war ko koo jox yàlla farataal ko ci yow gii nag boroom xam-xam yi nee nañu dagan na nga jiital ko joxe asaka des weer ñaari weer sañ ngaa joxe te joxe waxtu joxe ko jotagul koo xam ni wóor na ni denc nga lu jot lu mat ni saab mu des weer walla ñaari weer eh, la gën a wér mooy ni sañ nga ko jiital sañ ngaa jiital asaka jooju donte xawalaanul xawli yegg seegul motogul at jiital ko ngir aajo comme li xew ci at mii muy mbiru corona bi bari woon nañ ci doon laajte lool ndax mën nañoo jiital joxe seen asaka ah kay dagan na ndax asaka dafa am shaaibatu ibatu ibada ak shaaibatu al eh, alxaaja asaka yi joxe muuru muurum asa joxe mu asaka yi muurum koor day dugg ci bunt boobu mën nga koo jiital boo demee ci maraaq caba ba muy wax ci wàllu woo mi ngi lay wax ni fa laysa yujzi man lahu yuqaddimu wala alayhi duna xadrin yuqdimu wa da taabudu wa ma tax maxada lil fiili fa taqdimu fihi murtada nee na jaamu yàlla kese ku ko def te waxtoom jotagut am nga ca problème ndax la nga def baaxut te bakkar dana la ca top waaye loo xam ni Eh, jëf ji rek a ko tax a jóg kom fay bor teel koo fay lu ñu gërëm la mu ne nag wama ila hada wa hada yantasib fa fiihi xulfun duna nassin qad julib nee na loo xam ne dafa am shaaibatu al ibada ak shaaibatu saddil xalla eh, lépp am ci comme asakay muurum koor comme lu mel ni joxe asaka bu boobaa wuute nañu ba xam mën nga koo jiital wala mënuloo ko jiital waaye madhabu Malik nee na man ne lu bari ci ñoom du ñëpp nag waaye lu bari ci ñoom nee na sañees na koo jiital waaye jiital ga bu mu yo bu mu romb yow aw yow may nii ndax lan ndax asakay muurum koor la ko tax a jóg mooy sadd xaajatil faqiir ci bisu kori wi boo ko joxee ci njëlbeenu koor gi donte am na ku ko wax sax nag muy ibnu arafa nee na mën nga koo joxe ci njëlbeenu koor gi donte loolu qawlun shaaz waaye boo ko joxee boo may mu ndogoo ko lu jëkk muuru lu jëkk eh, bis ba di jot te bis baa tax a jóg zakatul fitr kon ginnaaw bu ñu xamee ni lu bari ci mazhab Malik nee nañu manees na ko jiital eh, ci lu tolloog benn bis ak ñaari bis bu mu toll ci bu mu yegg ci ñetti bis waaye teewul lañu gën a sopp mooy nga génnee ko la daa dagan rek waaye lañu gën a sopp mooy nga génnee ko baada fajri yawmil iid ci ginnaaw fajaru bisu it ga e, ku ko am jekku ko xaram na ci moom mu yeexal ko ba it ga weesu waaye bu fekkee ni am na ko génnewu ko ba it ga weesu bu boobaa it e, du tax mu mu wàcc ko dana ko joxe taamaane amaana du ca am yool ba ca ña ko ña ko ña ko joxe ci waxtoom am dafay tegu ci kawam ba faw ca bis baag te la ca topp ba faw comme jekk woon na ko bañ koo joxe loola ab bor la wu tegu ci loosam ba faw xadis ba ñëw nag doonte xadis bi coow nañ ci ci wéram ak wéradéem ci ni woor weeru koor dañ koy aj ci diggante asamaan nag suuf du yegg bata boroom joxe muurum koor am na ci boroom xam-xam yoo xam ni ci ku mel nii lañ ko wàccee mooy ki nga xam ni da koo am jekku ko te bañ koo joxe koo ko wooram kooram du yegg am na ñoo xam ne xadis boobu nee nañu kooku rek lay wax. am na ñu ne xaddis boobu kooku rek lay wax mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ko leeroon ci njëlbéen ak waxtaan wi xam na ne waxtaan wi am nañ yéene séddale ko ci ñaari xaaj maanaam ñaari émission émission tey moo nekkan émission njëkk bi incha allah ëllëg ci waxtu wi. dinañ indilu ñaareelu tomb waxtaan wi mu jëm ci sàkkaatul fitri nan lay toll ak julleet ñaari ind yi nan lañ koy jullee kon ñu ngi leen jox dig daje incha allah ëllëg ci waxtu wi ci waxtaan wi nga xam ni ñu ko àndal ak sëriñ Abdul Ahad Saane di ñaan suñu borom defal na ci ak topp defal na itam ak dégg man mën a am ngërëmal sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wala jamiil زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وامنا يا للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم بنا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديا